asalaamaaleykum euh, mbokk waa internet bi ñuy suivre à travers euh, partout dans le monde entier rawatina suñu chaîne bi ñu naan ko deux cent 221 people ni ñu ko baaxoo di def ak euh, sëriñ sépp tey nag dañoo def si waat fii seet si suñu wëllëre di suñu sëriñ ñu koy tuddee Serigne Mara Seck Serigne Mara Seck mën naa ne kenn du ko présenté te ñu bëri xam nañ ko ci àdduna ak ci bitim réew ak diaspora bi Serigne Mara Seck ñu ngi lay nuyu di lay dalal ci 221 people gannaaw ba nga nuyoo ba pare.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 di leen ñaanal tamit fa tabaarakallahu jéego yi ngeen def ba ñëw fekk ñu fii si suñu makkaan pour ñu séq ak yéen jotaay lépp lu ñu fi wax rek yal na nekk aw yiw yal nekk njariñ bi barakati yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf euh, Serigne Mara Seck ginnaaw nuyoo ñu nit ñu lay fay bu baax a baax di dal ci people ni ko baaxoo di def ak Serigne Sepp euh, son première question de bokk ci wàllum góor ndax euh, li nga ci wax. ñu bari dañ cee teg bët maanaam gis nañ ko ni ñu ko waxee moo tax dañuy bëgg nga dellusiwaat ci nga waxtaanee ko pourtant ñu bëri ñu ngi ciy bàyyi xel aussi ndax bëgg nañ cee jëriñu wàllum góor a te sonal nii loo ciy wax. waaw ah, fa tabaarakallaahu mbokk bi li nga wax am na solo ndax euh, wàllu ngóor dama ne du sax senegal partout dans le monde laay wax daanaka euh, soo fa duggee rek euh, ñi koy jàmbat ñooy ëpp. daanaka képp ku la seet si rek bu kenn génnee ñaar ñetteel ba am naa yaakaar ne faaw loolu lay diis moo tax euh, dafa toll foo xam ne ñu ci bari ñi ngi naan lekk yi amaana lekk yi mën na koo joxe foo mën na koo joxe am si ñoo xam tamit seen âge moo dem ba fa tabaarakallaahu loolu daal leen di dal ba ci biir loolu ngelawu seytaane daf koy joxe seytaane dafay dugg ci nit ki ci fànn bu ci nekk. seytaane dafay dugg ci doomu aadama ci fànn bu ci ne kenn ku ci nekk rek bu la seytaane duggee ak gàllankoor ba mu lay teg waaw mais nit ci bari mën nañu yaakaar ne siti wala hémorroïde wala yenn feebaru ndaw yi ba ci diabétique bi moom moo teg moo tax ñu néew kàttan déedéet feebar bu ci nekk dafa am sabab lay sabab ba nag ki nga yaakaar mu saafara la ko faw mu xam lan mooy sabab bi doo ñëw rek sëñ maaraay yëkkati ay traitement jox la dafa war a xam dëgg dëgg dëgg dëgg kii lii ko dal lan mooy sabab bi jàngoro boo gis rek am na fu mu sosoo am na loo xam ne lii moo indi lii fa tabaarakallaahu moo tax uh, incha allahu rabbi daanaka képp kuñ ciy jëflante dañuy xam duñ tëb tëb rek jox la traitement dinañ xam lii sabab bi lii la lay sabab nag bu fekkee lu ne ci yow la bala ngay ut traitement nga njëkk a saafara lee ba pare leneen looy wax na nga soog koo wax. ndax euh, feebar bi mën naa ne sonal na ñu bëri dootu koo wax da lay maanaam côté masturbation mbaa lan mu ne la po bu mett bi la mbaa mu ne la côté bouillon bi la mais dëgg dëgg dëgg dëgg lan moo fi mën a jële ngóoram même dafa jógewu itam am ñoo xam ne mën nañ cee def ay ñaan ba mu wàññeeku ci ñenn ñi ndax sonal na jeunesse bi trop trop waaw fa tabaarakallaahu dama naan nit ki tey ñu ci bari da nga naan dégg ñu ne man samay traitement yàlla dogal na ca kaw laa koy wax yombut joxewuma ay calmants joxewuma looy dem di yëg sa bopp bu jeexee jeex na damay tereeti waaw doonuma loo xam ne damay dem jox la nga utiliser fonctionner bu subaa nga dem seeti leneen damay tereeti la koy joxe la tax muy wér lenn la kenn ku ci nekk tawat bu ci ne am na sabab bu fekkee kee day masturbé wu bion yi la leen nag leneen ak lu mu ci man di doon am na sabab am na ñoo xam ne masturbé wu du bio du dara xam nga lan la yàlla dafa dogal dafa am lu branché wu ci ñoom nekkul seen ngóor a dong de ngóor a googu lañ gisagun ci kanam tuuti leneen dina yëngu seen yaram lu bokkut ak néew kàttan waaw moo tax yu ci baree bari li ko mën a sabab bari na ci gàttal waaw pour nga wér waxuma kenn ne nag damay ñëw dama lay jox nga dem utiliser boo utiliser ci guddi gi di nga yëg sa bopp mais samay traitement yomb da ko suivre ba heure soo sentir na pare nga ñu ñaanalante waaye duma la wax mukk benn yoon ne la demal jël lii benn yoon soo fas pare pare ëllëg nga may woo di ma boole seen lim koo dégg mu naan la ma sëñ ba def seen lim yooyu ñuy lim kenn du ci boole sëñ Mara ku fi ñëw it lii nga ma laaj li ma la wax laa la koy wax soo ko amul loo may jox nga jël yóbbu man nit du jox lu ma yàlla cëraleewu samay mbir nag yombul mu doy nga ñëw jël ku mu nga seeti feneen jërëjëf sëñ Mara fa nga daaneele foofa lay tàmbalee seen lim yi bëri na mais kenn du la ci mës a boole ba tax na mu bëgg a xam sëñ Mara ana kan moo war a ñaan ndax damaa seetlu léegi ku jóg dee ñaan rek kan moo war a ñaan dëgg-dëgg. waaw fa tabaarakallaahu yow sax mbokk mi mën nga ñaan ndax euh, yàllaa ko santaane waxut sax ci jullit yi ci doomu aadama yi waaye kenn ku ci nekk ki ko jël. am lu mu ci gëstu parce que da ci ci biir euh, tur yi suñu borom da ci am yoo xam ne code la waaw borom dara borom daara ji daf daan wax naan euh, maanaam sama prise laa yor boo ñëwee ma branché la boo demee di ne ma débranché la waaw fa tabarak maanaam ñaan dafa am ay code mm-hmm. yàlla dama naan boo ñëwee tey fëgg sama kër gi tijji la nga fëgg tijji lu ma la man naa fëgg naa bët waaye boo bësee sone bi ma dégg ko dama naan bërit ñëw tijjil la yàlla am na foo xam ne soo ko fay woo day mel ni dafay tourné jox la noppam bi yàlla waxtu dina jot waxtu woo xamante ne nii am na ci ñoo borom xam yu xam yoo xam ne dane dañuy wàcc ba ci suuf asamaan muy laaj naan ana sama jaam yi sàkku ñaan ñaan leen moo may leen pourtant waxtu woo mi ngi ci biir waxtu yi kuy ñaan dafa war a xam loolu waaw dama ne sëriñ li ma sama maam doon wax xam nga waxoon naa la ko suñu jotaay bële boo jox exemple da ngay joxe ci kuy dund doo joxe ci ku dem barzaq sama maam daf ma daan wax ne feek nit dabu la ci àll bi ne la sëñ Mara nga ne ko làbbayka mu ne dama am aajo nga ne ko duggal ci boutique bi jënd fooy ak bic wala jëndal nga euh, jënd benn butéelu Evian ñëw nga defal ko la mu koy def faj aajoom dem continuer sa mission matagoo sëriñ moo tax sëñ Mara ma ne ko labbay ko mu ne ma demal gëstu ji moo tax benn mbokk bu baax euh, ndeysaan ñoo fawandoo daf ma daan wax ma ne ma ko yàgg sonn ci xam-xam nga ma ne ko li fi sama maam ba woon dama koo tarbiye wu ba xam ko ba ko fi nag dem gëstu ji leneen loo xam ne woowu yoon ak wa sama maam awoon bokkut ba ma ko xamee nag dama ñëw teg ko fee aw yoon wi sama maam awoon ku ñëw ñu ànd ci ku ñëwul na nga dem seeti feneen du ma garanteel kenn tamit ay ñaan lii day sotti force Mara Seck ko wax jërëjëf sëñ Mara fo foofu laay desandi ba léegi ci wàllum ñaan bëggoon naa xam ana lan moo tax ñaan nangu ñaan mu nangu léegi mu jafe lan moo tax nit ñi dañuy ñaan mais ñaan mu nangu dafa jafe ñi ñiy ñaan ñoo ñaanatut wala ñi nga xam ne dañoo war a dox fekk leen ñu daan ñaan ñu foog leen ay ñaan kat dëgg ñoo ñaanatut. fa tabaarakallaahu ñàkk ay jaaba ijaaba ñàkk ko nit a ngi dox ci mbedd mi moo gën a am ijaaba sëriñ Mara bi toog. waaw boo bëggee noppalu ci àdduna koo ko gis jàppee ko comme sa bopp waaw boo bëggee noppalu ci àdduna koo gis jàppal ne moo la gën ngëneel xam ak ci kan la nekk ki la gën a ragal yàlla du sëñ maaraak du kii du euh, surtout sëñ tafsir nangam la de déedéet bul jàpp ne mukk moo la gën waaw bul jàpp ne mukk wala kii am na xam-xam bul jàpp ne mukk déedéet ngëneel mi ngi ci suñu boroom mënoo toog di liggéey ismu layel azam di def say sarax ngay ñaan yàlla mu di ko rejeté loolu mënul nekk yàlla boo ko joxee sa temps mu téel la sa temps waaw boo ko joxul sa temps nag du la téel dara doo ko woo ba mu wuy la yàlla ñàkkul fayda de bu neexee danga koy woo mu wuy la su mettee nga woo ko mu wuy la waaye suy neex nga fàtte ko su mettee soo ko woowee dalay alak mais du la wuyu bukk moo tax ñaan nangu di nga dégg ku la woo ba sonn sëñ bi fu ne jaar naa fa damay découragé ci ñaan nangam nangam nangam ku ma woone ma fa ma jaar man la fa nga jaar sa aajo fajut moo tax nga yegg si fii ci man fa nga jaar ba sa aajo fajut moo tax tey nga ñëw toog fii ndeysaan benn góor ca Fuuta bi mu ñëwee gaare otoom mm, sama euh, kii nekk fi dem jëli ko bi mu ñëwee ne ma sëñ Mara laay seet ma ne ko maa ngi nii de sëñ bi mu ne ma ay doom guddalu foon fii la wàcc toog waaw ni ma man li ma lay dégg lépp pour man sama moroom nga te bi ma ko laajee mi ngi am 67 ans waaw te ba mu amee ay problème mu tool yàlla dogal mu ñëw ne ma waaye sëñ bi nangam ak nangam ma ne koy mu ne ma ñun dañu am xam-xam ay làkkat lañ de ma ne ko yàlla xamul làkkat xam kan la yàlla xam naa ma ne ko ku tooñ waaw bu fekkee ne danga dan laa tooñ maanaam ma ne ko billaahi lazi laa ilaha illa da ngay am da mu wàccaat ci suuf ak daraaji ni ma wallaahi doom dañ maa tooñ ma ne ko bu la neexee jógal mu wax safara bi mu jënd ñetti bitéeli Evian ndox ma defal ko ca la ma ko cay defal wax ko na ma koy jëfandikoo ne ko demal keroog ba yàlla dogalee ba mu ko jëfee ba pare woo ma ne ma sëñ bi kooko tuxu na ah waaye dama la bëgg a fii ma ne ko fa tabaarakallaahu jot gi mayuñu ko parce que li ñuy génn dëkk bi des fois dafay bari waaye su yàlla dogalee ba nu ñëw dina ñu fa dem incha allah ba yàlla dogalee nag ñu ñëw fa la yàlla dogal yàlla moom ko loolu li ma lay wax mi ngi nekk en 2017. waaw booba mën naa ne kenn xamagul sëñ Mara. waaw booba fa tabaarakallaa yii mën naa ne xewul wala fesul. <laughs> waaw fa tabaarakallaa la mhm. jërëjëf dañuy eh, ci waxtaan bi ba léegi dugg baatu noob laa bëggoon xam ana lan mooy baatu noob ak eh, noob est-ce loo xam ne yomb na noob nit ki ba mu jàpp. waaw noob day daanaka nit ñi dañu ko jàpp ci koo bëgg fekk ne noob. yow sax mën naa laa noob ngir lan xiir la ci sama bopp waaw noob boo déggee noob rek muy jël nga xelu nit ki ak xalaatu nit ki nit ki xelam mooy xel maanaam di jëm ci yow xelu nit ki boo ko jëlee mu jëm ci yow lépp yow lay xalaat xalaatam yow lay xalaat mais noob kenn ku ci nekk sa sant sa sant dafa am liggéey boo koy liggéey moom sant dama naan xeet bu ci nekk dafa am loo xam ne boo ko defalee sangat bi day tàkk ba faw bu dee wàllum noob secret bi nga koy liggéeyee ci nga koy dagalee xawaatim ci ngay liggéey liggéey liggéey waaye doonu ne kii sant sekk rek kii géy la sant rek ñoom ñaar lay lay noob kee mooy noob ki déedéet boo ko defee da ngay juum mm-hmm. ba tax yenn saa yi nii wal ne la sëñ bi nax tubaab da ko noob ba jàpp ko ma ne ko noob tubaab ak japonais ñëpp ci bokk yam xong nopp yi maanaam nit ku xong mën nga ko nopp ba mu jàpp. dama ne xong nopp baag ka ñuul nopp ak ñëpp ca bokk yam nopp mhm. jàppal baag séeréel baag tubaab baag ind baag ñëpp ca bokk yam ku ne la nopp du jàpp tubaab waxul lu am yonent bee gënoon ñëpp képp ku ñu bind ci barkeem moo tax képp kuy dund ci leeram ngay dund daraja joo mën a am. loo mën a am wilaaya ba mën a am ci barkib yonent bi ci nga cëru ci yonent bi dañu ko liggéey ba jàpp ko yaa ngi dégg ki nga xam ne lan naan xongo nopp ak ñépp a ci bokk yam dañu ko liggéey ba jàpp ko mooy sallallahu alayhi wa sallam képp ku taxaw ne tubaab du ko tubaab wala ñenn yi kenn du la liggéey ba jàpp ni da ngaa xamul li ngay wax waaw nopp kum dul jàpp amul boo liggéeyee nag kamaatara dem jël say waxande ñu tegal la ay nopp yi ngay xool di bind di dugal nangam ak nangam téeméeri at boo ko tegee di nopp ki gën a waye di doo ko jàpp noob dafa am yoon yombul noob ak tàqale ñoo yam amul bu ci yomb. yoon bi mooy lan. yoon xam-xam bu wér. Mhm. ci gàttal li tënk wax ji yoon bi xam nga mooy lan yoonu nopp mhm. mooy xam-xam bu wér. man li may wax làq-làq lu ma ko dama koy wax ak assurance te ku ñëw sama kër fekk fii li ma la wax. wóoma kenn ne kaay ma ñaanal la. jërëjëf jërëjëf waxam day ànd ak assurance ñoo ko déggandool ba tax na damay dugg ci lu bokk ci wàllum bayre bayre nag suñ ko tuddee ñu bëri soxla nañ ko jamono ji mu di mbër mi mu di joueur bi mu di même commerçant bi bayre bu sax sab sëñ maanaam. waaw fa tabaarakallaahu bayre ku ko amul doo lijjanti lu sotti yàlla du wàcc di ma jox may lekk du wàcc di ma jox may solo du wàcc di ma jox may naan bu ma waree tukki du ma daggal billet li may sol fa ma koy jëndee nit a ma koy jaay ka ma koy ñëwal nit la su ma waree tukki billet bi may dagg euh, agence ba may dem nit la bu may dem euh, aéroport oto bi may dugg nit a koy dawal vol bi may dugg ay nit a koy dawal kon yàlla gannaaw ba mu la tëbbee wàcc la ngay doomu aadama mu boole la ci fa tabaarakallaahu ci nit ñu baax def la comme ni ñu ko waxee inna diina inda allahi islam boole la ci diine l'islam diine ji nga xam ne mooy diine ji gën kon fa tabaarakallaahu maanaam bul weddi dara waaw bul weddi dara lépp yàlla mu ngi ko tëgg ci doomu aadama yi doomu aadama yi buñ la soppul nag mënoo am lu sotti mënoo lijjanti lu sotti yenn saa nit fëgg fépp mu dëggal mën a ko yaabaare sa bopp mu ne maa sëñ bi mën a ko tojoo fenn kenn xamu la nga dem foo toog sëriñ boo toog ne ko defal ma kaaraange waaw kaaraange da lay tëj bala ngay aaru da ngay nekk ba toj ba nit ñi xam la ba li nga bëgg nga téye ko sa loxo nag nga beleene wu ñag sa bopp ñag sa njaboot loo dugg mu yomb la waaye boo tëbee tëb di ñag sa bopp di ñag sa bopp di nga bëgg a réussir mu tëla foo fëgg mu dëgër yenn saa yi nga nekku ne bitim réew naan la sama këyit yi maa ngi déposé ñu may rejeté doo am mukk wala boog du gaaw ndax lan sëriñ boo jot na ko man kay wax ji nangam moom kay moom xam nga nangam Sénégal nangam dama bëgg nga defal ma kaaraange parce que nangam nangam lan mooy loolu. Mm-hmm. loolu mooy lan. dañu mm-hmm. bàyyi loolu. li ngay def mooy boo toogee ci sëriñ nit dina ñëw di ñaanlu te xamul soxlaam sëriñ nag moo war a mën a am xam-xam boo xam ne nit bu lay ñëw di leen ñaanlu te xamul soxlaam nga gindi ko. Mm-hmm. gannaaw bàyyi rek waaw. kaaraange mën na nekk kaaraange mën na nekk kaaraange mooy waral mën nga def sax ànd ak say morom nga def musiba bu rëy waaw te yaa ko jiite nga ñëw ñu ne ñu ñëw xool la ñu téye leen ñoom ñëw ne la ah yow demal yow defoo dara <laughs> ci kaaraange la ñëw téye ko mu ñëw téye ñi nga xam ne ñoom seen yoon néew ci ne la yow defoo ah yow yow ah yow mën nga dem yow defoo dara lan mooy def loolu kaaraange dama ne yenn saa yi nga gis ko naan la gëw ma ñaan mm-hmm. moom la yàlla di nat mu am beneen problème la mu doon denc ba cay mbubb naan gëwma ñaan lépp lépp financé ko ci sëriñ te aajom du faju ay caaxaan la gëwma ñaan kala koy wax chaque jour mi ngi sangu mi ngi suul duñ tudd tur de duñ tudd tur de waaye koy yaakaar fii ci dëkk bi ñu koy wax Sénégal muy kilifa toog na fii du yëpp nag li may wax dama ne day dem de mm-hmm. ku may dégg di nga xam bu baax li may wax waxuma ko ngir làqal-làqal waxuma ko ngir nëbb kon du ma la déggee ponkal yi sax dañu ñëw di seet si di <laughs> yow mi di wax ponkal nga ut mooy yàgg mais am yàggul nit ñi li ñuy jàppee maanaam ponkal mooy ko am déedéet lool du ponkal loolu du ponkal de mm-hmm. tey tey jii nii nii nii ñi ngay teg ay ponkal man nga leen a gis fii nii tey tey suba nga yërëm li di leen dimbale yow yàlla waxul kenn dara yàlla ba jamono ji may wax am na ci magasin mi loo xamante ni li mu joxe nii lam denc ko ëpp ba léegi amagul borom tëralee ko kenn lu ko fa ba ñaan bu ma gis rek de doy sa bopp yow te ngay taxaw di ñaanal sa bopp. am na solo jërëjëf jërëjëf euh, sëñ jeexal ci xam naa cas d'actualité lañ koy def jamono ji léegi mën naa ne metti na rëbb na jafe-jafe yi ak problème yi hmm. loo ciy wax. Hmm, xol bu tilim. ñàkk wax dëgg soxor yaa ngi dégg mm-hmm. yuutu foo eggul bëgg a tekki force wala tay tay ma am lu sama moroom amul loolu lépp waaw loolu lépp li ko indi maanaam jikko ju yàqu ak kersa amatul waaw Seydi Hadji Malick Sy daf daan wax ne mm-hmm. kersa fu mu jóge foofa xam-xam desatu fa jikko bu yàqoo te amoo ker kersa mënatoo cee jariñu loo am xam-xam-xam sa jikko rafetul yaag mbaamayam loo am xam-xam-xam te amoo kersa sa xam-xam kenn du ci jariñu ndax li ngay wax dëgg la de waaye ay noon ngay mujj ëpple waaw li ngay wax day nekk lu wér waaye ay noon ngay mujj ëpple yenn saa yi nga dégg ko naan la fen buy defar a gën dëgg bu yàq ma ne ko loolu amul fen fen lu mu defar yàq ko suba dëgg nag lu mu yàq tey suba moo koy réglé nañ ba loolu ñuy dugal fii ay wax yoo xamante ni nii day dem di wéy rek te li ñuy wax loolu amul fenn yàlla moo ko wax waaw. jafe-jafe yi boo saxee ci dëgg dina metti lool waaye lu mu mm. yàgg yàgg ñëpp dinañ tourné waat daw sa kaw. boo saxee ciy fenn nag mooy neex bés dina ñëw ñëpp wan la ginnaaw. fii ñi fi am ñi fi yàlla dénkoon teraanga ñu ñàkk chaque jour bu ñëwee ci yow da ngay dégg sëñ bi kay maye naa oto maye naa terrain waaye nangam nang nangam nang faale tuñu ma ma ne ko yow la da nga toppoon ñu di la jaay tey dem nga ba nag ba daal ci xeer soto kenn ku la jàppale ma ne ma ne ko yàlla daf la mayoon nga koy fooyee du ma yàlla de xawma lu yàlla di dogalaat waaw ah, waaye yàlla dina la jaarale foo xamante ni du maaraam moo koy saaf li ma xam lépp su ma ko bindoon te natt boobu jeex ko du tax yàlla teggi ko dina ànd nag lu mën ñu def ko ñaan la la ci yàlla waaye bul fàtte sa bopp del ñaanal sa bopp del saraxel sa bopp jikko yi yàqu na te waxoon naa la ko suñ jotaay bëree naa la xam-xam dina rafle te dina yàgg tuuti di nga gis mag mu am xam-xam waaw te jamono bu fekkee da nga bëgg a xam-xam donduwoo gëstuwoo ñun nag yàlla daf ñu cëralee boo demee bàyyi maam loolu la doon def bàyyi loolu la doon def ay mag loolu la ñuy def ñi nga xam ne ñoo leen féete mag sax loolu la ñuy def <laughs> kon ñun fa tabaarakallaahu dan naan li ñuy wax dañ koy wax publiquement suñuy bàyyi dañuy seetaan suñuy yaay dañuy seetaan suñuy maam dañuy seetaan li ñuy wax dañuy bëgg nga jóg nga dem gëstu ji ko nga xam kii di wax lii muy wax lan moo tax mu di ko wax koo xam ne nag soo waxee moom amul lu la neex man nga waaye koo xam ne soo waxee nit ñi lay déglu lii dafay dem kenn ku naan déggal sëñ ba wax ndax ñun ñaan boole ki ñu sëriñ dañu judd fekk ko fi buñ bawoon lépp di liggéey leneen teewul nit ñi di ñëw naan sëñ bi ñaanal ñu ci yàlla aajo boo am nag bu ñu ko xamee dana lay wax lañ ci xam am na aajo yoo xam ne ñaan du ko faj xaba lañ moo koy faj waxtaan teg la ci xel wala waxtaan dolli la la ñu xam ñun dañu xam ne suñ koy yaakaaree nga def ko incha allah di nga ci am na waaye am na loo xam ne ñaan du ko réglé am na loo xam ne mm-hmm. waxtaan bala ngay ñaanal nit ki waxtaanal ak moom am nit dina toll foo xam ne fa tabaarakallaahu maanaam ñaan lii du ko regle xam lan moo koy régler waxtaanal ak moom delloo si ko mm-hmm. dalal xelam xamal ko ne ko yàllaa fi ne koo yaakaar yàlla la yaakaar mm-hmm. ku la tëkku bul tiit ba ragal mm-hmm. bul tiit ba jàqi bul tiit bul ragal bul daw koo yaakaar yàlla la yaakaar ka ngay tëkku tey tey suba la muy jànkonteel moom xamu ko kon bul tiit bul ragal bul jaaxle nit ki am na foo xam ne dafay toll da koy wax ak moom wan ko lu wér wan ko lu mat sëkk wan ko lu wér wan ko lu mat sëkk du ma wax kenn kaay ma ñaanal la de kenn ku see am sëriñ bu lay ñaanal nga am ci moom yaakaar demal mu ñaanalee ca yàlla. ana uh, waa uh, fa tabaarakallaahu xanaa di leen bégee. Mm-hmm. incha allah di leen ñaanal ci yàlla euh, seen site bi yàlla na dem ba nekk ay télé télé waaw fa tabaarakallahu di leen ñaanal rek yéen moom duñ def dara lu dul ñaanal leen ndax euh, mën naa ne yu ci bëri nit su ko bëggee leer yéen a koy jotal kon dama naan mënu leen fee ñàkk kon nag euh, dañ naan doomu ñay moom kenn du ko jàngare yi da koy koy ñaanal gudd fan kon ñu ngi leen di ñaanal fa tabaarakallahu jéego yi ngeen def yàlla na nekk ay tiyaaba. yàlla li ñu fi wax rek fa tabaarakallaahu yàlla na nekk njariñ bu fekkee ne jub na ngeen xam ne ci ndimbalu suñu borom la bu fekkee ni dëng na ñu ngi leen koy jéggalu te xam ne matatik doomu aadama la doomu aadama matul yàlla rek moo mat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.